nguuru Sénégal dogg nañ wote yi ñu dem dinañ ko organiser organiser gu mucc ayib ba li nga xamante ne moom la sénégalais yi tànn doon lu